la wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal axirin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaaril azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dalal ñépp ñu teew di leen massaw di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix ba lii ñu sumb yàlla may ñu si ndam yàlla may si ndamu lislaam yàlla may si ndam waa Sénégal dafa mel ni dañ maa sant ma def benn waxtaan ci benn analyse un peu de la situation mondiale ndax c'est vrai que jamono fi mu toll sooy gëstu walla lay jàngat benn dëkk ba pare bàyyi mboolee mi dëkk àdduna bi te fekk ñépp a ngi connecté wu di xaw a lajj ci sa analyse fi may bëgg aborder thème bi bu mbon mbon dama jàpp ni dafa nekk benn entreprise mondiale instant yi bu ñuy doxal ci àdduna bi yépp dëkk bu nekk nag ñuy respecter doxalinam di respecter histoire am di respecter ay sensibilité pour mën a am ndam ci dëkk boobu suñu borom subhanahu wa taala jàngal ñu si alquran ñaari xisbu rek ñoo fi nekk xisbullahi ñoo fi nekk ak xisbu seytaan ñaar nii nag dëpp wi jamono yonent yàlla aadama alayhi salaam depuis ba aadama nekkee biir janna ñaari groupe yi ñu ngi laalante ñu ngi jaamarloo eh, kenn ku nekk di bëgg am ndam ci kaw keneen su may xool aujourd'hui le système mondial damay bëgg aborder li ñuy wax le nouvel ordre mondial et que mu ngi imposé wu à ñu xam ko ak ñu ñàkk ko xam lu ñu war a bàyyi xel la dafa am ñeent ñu booloo gis ni ñoom seen booloo war nañ mën a not àdduna bi ñi si njëkk mooy franc-maçon yi Seydi Maxtaar wax na ko léegi franc-maçon yi dañoo am idée de domination ak de reconstruction du monde ñoom bañ na ko sax dañoo tuddee seen bopp ay mason neen dañuy tabax dañoo jàpp ne kon war nañu tabaxaat tabaxin bi nga xam ne dañ ciy dindi lépp luy gis-gisu yàlla ndax gis nañ ñoom yàlla warul tabax seen gëstukat yu mag yi dañoo jàng ñoom ne yàlla ba mu sàqee aadama alayhi salaam ba li fa xew-xew li alxuraan nettali nañu ko ci lu mu dàqee iblis euh, ne ko génnal fii euh, iblis ñaan ko ngànt ñaan ko dele ñoom dañoo gis ni yàlla àdduna bi iblis la ko yàlla jox daf ko dàqoon àjjana ndax aadama moomam àjjana waaye iblis moom àdduna et que ñoom seen jàngat àdduna bii kon benn kilifa rek la war a am mooy Lucifer bi xam moom la ñu dàqoon àjjana ne ko foofu du sa place ci loolu nag la sukkandiku ñoom gis ni kon Lucifer bëgg-bëggam te mooy ki yenu leer yi moom lañu war a doxal ci kaw suuf quitte a combattre tout forme de religion lii kon lu ñu war a bàyyi xel la ci suñu ay doon yi yeneen kuréel yu bokk loolu dégg ngeen jamono bii féministe yi dégg ngeen libertariens yi mooy ñuy wax les libres penseurs lu tax ma leen di tudd dafa am entreprise bu am ci àdduna bi ci soppi l'islam dama koy wax démb rek ak Sidi Ababacar am na mbooloo bu nekk France te mbooloo moom muy commencé yaatu ci àdduna bi ñu ngi tuddee seen bopp les la ligue des musulmans démocratiques lu tax lig bi am solo ndax ils sont dans 43 pays musulmans ci àdduna bi lu tax mu am solo ñoom dañoo gis ne alquran méngootul ak jamono nee ni alquran dafa am ay aaya yu worontoo ak la parité ndax am na ay aaya yoo xam ne dafay surtout en matière de de droit successoral dafay naan góor dafa war a am ñaar jigéen dafa war a am benn nee loolu méngoowul ak parité dañ ko war a soppi ñaareelu xeetu aaya dañoo gisee am na ay aaya yi xam ne aaya yooyu dafay woo ci mbañ lu ñuy wax les sémites am dafay woo jullit yi ñu jaamarloo ak yahut yi dafa am discours bu bu xaw a dëgër bu muy am ci noonu yàlla yi ñu gis ni aaya yooyu entrave la à la paix mondiale dañoo gis ni aaya yooyu dañu ko war a dindi donc ñoom seen recensement gis nañ lu ëpp deux cent cinquante versets du Coran yoo xam ne dañ ko war a effacer ak yeneen cent et quelques versets du Coran yoo ko war a réécrire ndax méngootul ak le vingt-et-unième siècle ñii dañoo am kuréel yu fort bëri ay imam yu ci bokk dans le monde entier nag maanaam ligue la ligue boobu elle a une vocation mondiale yemul si ñoom mu am beneen kuréel bi nga xam ne kuréel boobu ay yahut ñoo ko taxawal soo demee fële ci France euh, ku ñuy wax BHL muy Bernard Henri Lévy yahut la dafa taxawal kuréel bi nga xam ne ne il faut ñu rendre humain le Coran ñoom 2020 lañu fas yéene génnee seen premier Coran yu pare ñoom 2020 dinañ commencé wasaare seen alxuraan nañ ko commencé joxe sous fichier numérique ba d'ici quelques années képp ku ubbi alxuraan di nga gis message bi nga xam ne lépp luy violence lépp luy euh, mettit lépp luy xeex doo ko ci gis donc lii ce sont des menaces yi nga xam ne ñu ngi peser ci kaw jullit yi te menaces si dafa sérieux à telle enseigne que jullit yi war nañ ci am jàngat ba pare jëm si andi ay solution euh, bu ñu delloo xool dafa am benn jàngkat bu ñuy wax euh, Samuel Huntington xam naa professeur euh, Ndiaye moom dina xam bu baax donc dafa bind téere tuddee ko The Clash of Civilization tuddee téere bi le choc des civilisations ginnaaw ba ñu génnee deuxième guerre mondiale mu gis ne civilisation yi laa budda foog ñu jaamarloo foog ñu laalante te foog ñu dóorante mu identifié woon nag huit civilisation ci àdduna bi civilisation chinoise dafa jàpp ne civilisation bu autonome civilisation japonaise civilisation indienne waaye fu tuddaale civilisation musulmane mu ne civilisation yi yëpp dañoo am vocation dominer la monde et kenn kese moo ci mën a am ndam donc suñu xoolee kon lecture boobu nga xam ne sur lecture de combat bu ñu instruire la monde ci lecture de combat boobu islaam nekk au centre de ce combat là ndax tam bu ñu fàtte ni euh, ordre mondial bi am instant yi àdduna bi mu tëddoo lii doxal àdduna mbirum poo la damay joxe misaal rek ne xoolal jamono bi àdduna bi ñuy woowee milliardaire quatre-vingt pour cent milliardaires yi seen milliard bu ko jëlee soit ci woy soit ci sport maanaam ay footballeur ay basketteur ay chanteur ñii ñooy milliardaire jamono ji ñii ñooy staru àdduna rek fo moo nekk aujourd'hui au devant euh, du du monde léegi nag système bi moon wax léegi muy le nouvel ordre mondial dafa am ñeenti pompe yoo xam ne sëñ mo laxas bi si jiitu te moo ci ëpp solo jamono bi mooy l'industrie pharmaceutique mooy ñiy jaay garab yi maanaam feebar yu gën a bëri sax ñoom ñoo ko créé maanaam feebar yu bëri mu ngi am jamono bi feebar yooyu du ay feebar en réalité dañ ko créé biir laboratoire di ko sotti population yi ci ndox yi ak ci lekk yi ba pare wëlbatiku ñëw di ko faj lii mooy la réalité aujourd'hui de surmédicamentation sax bi nga xam ne hôpital yi dañ koy def te xamuñu lu tax ñu koy def aujourd'hui dans tous les hôpitaux dafa benn protocole bi nga xam ne médecin bi ku ñëw ak feebar lii la lay jox ci garab maanaam dañ lay surmédicamenté li lay jox ci garab moom xam na ni yow sax soxlawoo garab yooyu soxlawoo loolu yëpp ci garab waaye ñi defar garab yi dañuy fay médecin yi li c'est réalité te bëgguñu malade bi dee dañ ko bëgg saxal mu dund pour continuer jël garab donc ak côté de l'industrie pharmaceutique l'industrie d'armement industrie bu am doole la ci àdduna mooy ñuy defar gànnaay gis nga ni jamono bi l'économie de guerre moo ëpp solo ci adduna bi maanaam da ngay somb dëkk euh, ne da ngay xeex terrorisme boo xeexee terrorisme da ngay andi sa ay armes utiliser ko fa facturer ko dëkk bi nga ñëw libéré soo libéré dëkk ba pare facturer ko euh, li nga fa def ci ay armes ak li nga fa fay sa ay soldats loolu daf la koy fay moom en ressource bi mu am ci dëkkam ba pare sa ay entreprise am priorité pour ñëw tabaxaat dëkk boobu donc dans l'économie de guerre aujourd'hui dëkk bu ci engagé wu dafay gagné quatre fois day jaayee armam day utiliser ay militaire am dafay fayeeku en ressource naturelle stratégique te dafay yor tout le marché de la reconstruction c'est-à-dire que a tabaxaat dëkk bi moom moo yor marché donc lii Occident mu ngi koy doxal jëmale ko ci dëkk yi xam nañ mooy dëkk yu ndóol yi te dëkk yu ndóol yi si ëpp ay dëkk te ñun décret yi ñu si décret yu doole lañu bokk moo tax lu mat a bàyyi xel la la haute finance benn ponk la ci nouvel ordre mondial boobu mooy ñetteelu tànkam te moo cëpp sol muy mbiru lebalante bi ak lebale xaalis bi riba système bi yëpp système riba te jamono bii li ma jaaxal ay jullit ñoo ko cautionné jullit ñoo cautionné système riba bi nga xam ne moo am damay wax barki démb ak sama benn xarit rek ma ne ko mu ne ma yor compte bancaire bàyyi fa xaalis denc ko ko ñu lay rémunéré yow si ñuy ribaa nga bokk ndax boo fa bàyyi woon sa xaalis duñ ko mën a jël pour lebal ko keneen donc te pourtant ay jullit ñooy jéemal layal bi ba pare bañ ci andi euh, atte yi war man a par rapport ak l'islam donc ñu gis kon nii may tudd yëpp muy acteur nouvel ordre mondial yi acteur yi nga xam ne seen objectif lu leer la maanaam dëgg ak caaxaan mënuñu nekkandoo san kenn duma keneen ki ala kulli xaal foog caaxaan duma dëgg rek wala dëgg not caaxaan ñu taxawal dëgg te yàlla tax lii moo waral may wax sànq ne sooy xool l'islam bu ñu koy agressé ci àdduna bi te xetu mbon yi yëpp ñi ko planifié benn ñenn gasal mooy franc yi ñoo planifié l'homosexualité dans le cadre de la libre orientation sexuelle dans le cadre de la du, du, du, de la disposition de son corps yëpp ñoom seen ay politique la ñu ngi jamono bi ñu ngi ñu ngi promouvoir homosexualité lu tax ñu koy promouvoir doomu aadama yi ñoo commencé bëri te ñoom dafa am seen gëstukat bu ñuy wax Malthus économiste la euh, gëstukat la gisoon ne doomu aadama yi suñu ëppee yenn ëpp yi maanaam lekk yi ci kaw suuf lu doyati pour yor doomu aadama yi il faut kon ñu am plan de réduction de la population mondiale lii franc yi ñoo ko wax ci jamono bi naka la ñuy limiter la population mondiale il faut ñu encourager homosexualité ndax bu góor ak góor di sëy wala jigéen jigéen di say jur du mën a am il faut ñu yombal césarienne di xotti biiru jigéen ñi pour ñu mën a bañ a am doom yu bëri il faut ñu wàññi la système immunitaire doomu aadama yi ba du ñu mën a jaamarloog feebar yi comme ça seen espérance de vie dina mën a wàññeeku.